Les li ëpp doole li ëpp doole tey droit d'auteur li ëpp xaalis droit d'auteur li ëpp alal droit d'auteur copie privée copie privée ça peut nous apporter minimum 3 milliards par an on n'a pas besoin de chercher des parrains et des marraines pour organiser des spectacles tey loolu bu ko on n'a pas besoin que l'État nous donne de l'argent Nous, am ay problèmes suñu biir ñii di xëcc di yóbbu parce que suñu xaalis ñun ñoo ko on ne demande rien on ne demande pas qu'on nous donne kenn bëggul ku lay may ku ñu may nga jël mais kenn bëggul ku lay may nit nga jàngal ko nu muy nappe moo gën nga koy jox li ñu moom la soxla lan la ñu moom mooy la loi 2008 nañ ko appliqué buñ ko appliqué am na ay points yoo xam ne bu ñëwee lu mel ni copie privée bu duggee on a perdu entre temps depuis 2008 à 2020 ça fait 12 ans qu'on a perdu au minimum 3 milliards par an ça nous fait une trentaine de milliards yoo xam ne pourquoi ñu nar a toog fii ñu ñuy fayal ay ay hôpital wala ay ay clinique wala ñu évacuer fekk ñu koy ñaan on n'a pas besoin de ça on a besoin que la loi soit appliquée comme il le faut euh, euh, le statut de l'artiste a été amené Sous loolu ñëwee fekk ñun amuñu dërëm bu ñu mën de dundalee suñu bopp lan lay jëriñ statut de l'artiste après dafa waroon nous au moins ak la loi nga xam ne ak li nga c'est a été voté maintenant voté nañ depuis 2008 copie privée bi ça c'est un de deux moins que les droits numériques, il y a 4 ans, les recettes publicitaires dans les télévisions tournaient autour de 20 milliards. Les 4,5%, mais c'est la loi, c'est une loi qui a été votée. Pourquoi on ne l'applique pas On n'a pas besoin de chercher elle, on n'a pas besoin de changer les chiffres, parce que c'est une loi qui a été votée. Parce que si on change les chiffres, on va repartir à l'Assemblée nationale. Ça a été voté, nous, nous l'avons Moi, les gens se regroupent pour tok xex li nga xamné ne ñoko mom la SODAV affaire ne nous intéresse pas lu ñu intéressé intéresse, nu muy fonctionner ñi fa nous intéresse pas li ñu intéressé moy que la Soda fonctionne. fonctionner mu fonctionner ko récolter 2 milliards nga jël 1 milliard et quelques mu nek budget de fonctionnement pour bo xamné xawma ñaatu personnes personnes est-ce que le conseil d'administration c'est juste 33 personnes comment se fait-il qu'on prend 1 milliard et quelques

ñoo def yëfu nit ñoo solo ba jekk macha allah gaari suñu oto ñëw toog fii waxtaan xuloowuñu xeexuñu fi paaka génnul mbaram dara débordé wu fi wala. artistes yi wax dëgg yàlla ñu ci bari kontaan te ku kontaanul nag jarul xuloo jarul xeex jarul xiiroo jarul ñaayo jarul dara dañ dañ naan la rek lii bëggatuñ ko bu fekkee nag dañ la dénk ne lii. ñun artistes du Sénégal yi ñu la ko dénk ba pare ñoom artistes sénégalais yi amuñu benn contrôle ci liñ la dénk donc y a un problème. ñun dañu bëgg a ñàq ñun ñaan ñu président de la république dañu delloo suñu dignité si loolu ñu wax chaque jour et puis ñun ñu respecté nañu jox suñu cër si ay jàngkat ak fii ay journalistes ay producteurs ay ay écrivain ay jàngkat. secteurs yi am ci ci ci ci caada yëpp ñu ngi fii culture ñu ngi fii toog mais lu mos lu am rek ci sax ay jàng sax après boo déggatoo jàngatu jàngatuñu ah ñu ne ñun da lañu mujjee soit eh bu leen tëgg spectacle amatul ñu ne ñoo ko fi indi démb rek boo xoolee tey ñu ne aéroport ay ay ay AIBD ñaata la dugalati après ñun ñun ñu ko dugal daal si ñu lañ si ñun lañ koy ñun lañ koy noté. Parce que nous a pas d'autre qui Il faut que nous respecte, il faut qu'on nous respecte. Nous faut 11 000 chiens au Sénégal, 11 000, cela veut dire que 11 000 sont morts. 11 000 sont pendant 7 ans. Vous pensez 11 000 sont morts pour amener le Sénégal dans un où Et puis nous, vous le nous, la soirée, demain, vous allez y orchestre yi fi nek yépp ou ci orchestres. quatre wala cinq orchestre orchestre bo ci dem chanteur bi rek changé les instruments sont ñoy ñoy ñoy ñoy avons un onze musiciens ñu nit système bu fi am mo ñu tax ce système là il faut l'éradiquer il faut l'éliminer il faut l'écarter système la il xamné arranger arrangé wuñu te gis nañ depuis des années des décennies et des décennies c'est le même système finalement fan la mujjee boo bëggee musique nga de il faut ngay samay mbayaan pour nga tedd wala boo février, ñu defal la ay on ne veut pas de ça on ne veut pas que ça continue loolu lañ ne la pas bëgg mu taxaw te pourquoi c'est simple les artistes se sont battus ba am li nga xam ne difficile dans un pays mooy une loi et cette loi a été Voter à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'il nous faut rien d'autre que d'appliquer la loi Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on fait appliquer une loi une loi qui n'est pas appliquée mais c'est une loi qui n'existe pas parce qu'elle n'est pas appliquée kenn appliquer une loi Ça veut dire que ñun li nekk ci loi Ce lenn kese lañ ci gis SODAF. existe la création de SODAF. Et nous fonctionner